dale na jàmm ñoo ànd xëyër yéenekaay ñu di l'info sud quotidien l'observateur le quotidien l'observateur la ko agressé journal bi di le di l'info nee na Maimouna Ndour Faye njiitul 7TV dañu ko agressé si buntu këram ginnaaw émission boo xam ne def na ko ci télé bii di 7TV yéenekaay gii di l'observateur nee agression boobee ginnaaw bi ñu ko agressé moom Maimouna Ndour Faye fa mu tëdd fa la procureur di wax ne wool leen ma taxi jamono ji maa ngi ñàkk deret yoo xam ne deret yu bëree bëri la yéen a di enquête ak libération xëy di ko dëggal journal bi di vox populi yi nga xam ne ñooy waa classe politique bi maanaam mbooleem ñi nga xam ne ñooy politique ci réew mi ñaawlu nañ bu baax baax agression bi nga xam ne def nañu ko may mun a ndur fay di vox populi nee na du journaliste yi rek ak mooy politique waaye ñi nga xam ne ñoo société civile bi ak sénégalais yu bare bare am nañu lu leen naqare ci agression bi nga xam ne Maïmouna Ndour na koy dund yéen kay ñu ko war a wagar yéen gi de Le Soleil njiitu mi di président Macky Sall nee ki def ñaaw téef li Maïmouna Ndour Faye kookee danañu lijjanti ay mbiram yéen gi ne nag kuréel yi ëmb patronat presse yi ñoom tim ñaawlu nañ bu baax a bi nga xam ne moom la ñu def Maimouna Ndour Faye jamono ji li ne enquête bu leer la doon ci yi a leer ci mbir Maimouna Ndour Faye ba ñu moo def googale ñaawtee fa yéenekaay gii di bés bi xëy di ñu ko menacé de mort yéenekaay gii di libération xëy di ñu xibaar naan ñu ki nga xam ne moo agressé Maimouna Ndour Faye ginnaaw bi mu ko agressé sac bi la jël mbooleem li nekkoon ci biir sac bi mu jël ko bàyyil ko fa carte d'identité yéenekaay gi nag nee na gendarme yi jamono ji piste yëpp ñoo ngi koy wër a Barthélémy Dias daanay wax ne agression bi nga xam ne def nañu ko may Maimouna a xam ñan ki agressé Maimouna Ndour def na lu ñaaw a a Vox Populi ne maa la ko wax ndax lu toll ci ñetti paaka la ko jamate yéen kaay gi nee na Maimouna a def enquête ginnaaw bi ñu ñu ko sololee deret daan nañu koy dégloo maanaam entendre nañu ko yéen gi di wal fajri xëy duñu xibaar nañu taskatu xabaar yi nekk ci réew mi mer nañu ba maara day wax ne kii def ñaawteef gi danañu ko teg loxo ko bëggoon a ray yéen gi di enquête xëy fësal si mu njëkk ne indignation générale maanaam mboolem ñi nekk ci réew mi ñoo ñaaw la bi nga xam ne moom la def fa Maimouna Ndour Faye ndax li ñu ko def mbir mu ñaaw a ñaaw la Maimouna Ndour Faye ci buntu këram la ñu ko poignardé yéen kaay gi de la Tribune xëy duñu xibaar naan ñu cap di coordination association de presse ñoom jamono ji ñu xibaar naan muy Karim Wade di Macky Sall di Khalifa Sall di Idrissa Seck Bougane Gueye Dany Thierno Alassane Sall coalition Diomaye président di El Malick Ndiaye di Serigne Boub di Amadou Ba di Mamadou Lamine Diallo di ministre bi ñu dénk wàllum agression bi nga xam ne def nañu ko Maimouna Ndour Faye yéenekaay gi di Vox Populi xëy ñu xibaar naan ñu imam bi dëkk ak Maimouna Ndour Faye ñu bokk benn quartier daan nay wax ne agression bi mën naa bokk ci lu jëm ci wàllum insécurité ndax seen quartier boobee quartier la boo xam ne amul sécurité ndax imam bi li mu jàpp mooy agression bi mën naa nekk ay wuyuk samba booy ndax seen quartier bi maanaam amul benn sécurité ci weer wi rek imam bi nee na am na ñeenti agression yoo xam ne am na ci seen quartier boobee ndax ñi nekkoon ci ancienne piste bi nga xam ne dañu ko dajj imam bi nee na ñu bëri si ñoom seen quartier boobee jamono ji fa la ñu jawali daal di fay dëkk loolee bokk na ci li leen andil bi a wax ne xam ne moom la ñu def Maimouna Ndour Faye ginnaaw bi mu waxee ne ndax mbir mi du ab complot boo xam ne dañu ko def ngir nag capote ngir nag bëgg yàq loi amnistie bi nga xam ne Macky Sall jamono ji jébbal na ko waa assemblée nationale ngir ñu voté ko Mamadou Lamine Massaly laaj na benn laaj nee na ndax tamit du ay gaay yu ñoo jóg agressé Maimouna Ndour Faye ngir nag bëgg yàq deru Macky Sall mi nga xam ne moo taxaw bëgg def ab loi amnistie bi ci réew mi ndax tamit ay nit jóguñu ngir bañ Ousmane Sonko génn ci kasu bi ba tax ñu daal di def boobale agression loolee lépp ay laaj la yoo xam ne Mamadou Leen Masali moo xëy di ko laaj yéen kaay gii di révélation xëy di ñu xibaar naan ñu agression bi ñu agressé Maïmouna Ndour maanaam mën naa bokk ci lu jëm ci wàllum insécurité yéen kaay gii di antenne quotidien Moustapha Diakhaté moom waa Pastef tuumaal nee na ñoo agressé Maïmouna Ndour Faye yéen kaay gii di leen fu bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum projet de loi bi njiitu réew di président Macky Sall bëgg taxawal ci réew mi waaye yaanaa maara démbu janoo nañu ak tasul xabaar yi ñoom Aliou Sané ñaawlu nañu ko ba fa ñaawlu yama ñoom nag nee nañu dinañu xeex ngir loi amnistie boobee bañ a am ci réew mi fu malaat ci biir journal bi daan nay wax ji lan lay parax-paraxee ngir nag taxawal ab loi amnistie bi ci réew mi Macky Sall lan la bëgg a effacer Macky Sall kan la bëgg a amnistier mbaadu Macky Sall dafa bëgg a amnistier ñi nga xam ne ñoo doon joxe ndigal ñoo doon joxe ay ordre ngir nag ñu def ay ñaawteef ci réew mi waaye nag réew mi di Sénégal Macky Sall mi ñu ko dénk ak ñi mu àndala bu ñu fi indee ab loi amnistie beneen nguur bu fi ñëw mën na ko fee jëlee yéen a gii da lay siko waa yaanaa maar jamono ji ñoo ngi woo askanu Sénégal ngir ñu mobiliser ngir ñu jóg taxaw ngir loi amnistie bi bañ a jàll ci réew mi yéen a gii di wal fajiri xëy duñuy xibaar naan ñu lu jëm ci organiser élection yi avant le 2 avril ñi nga xam ne ñuy waa Union européenne ñoom ba léegi ñoo ngi sëkkatal Macky Sall ngir mu organiser élection yi avant 2 avril avant mandaam di jeex yéen a gii di 24 heures Thierno Alassane Sall constitutionnel andi fi ab gi de la Tribune nee na lu toll ci ñetti téeméer ci universitaire yoo xam ne ñoo ngi sàkku ci Macky Sall ngir mu organiser élection yi avant 2 avril la yéenekaay gi di Vox Populi nee na universitaire yooyee ñaawlu nañ bu baax baax di la tuwaar bi nga xam ne ci la Macky Sall nekk maanaam layaam layaam gi Macky Sall nekk universitaires yi ñaawlu nañu ko ñoom nag nee nañu waa conseil constitutionnel ñoo i HLM bu Grand Yoff bu 15 heures jotee yéenekaay gi de Libération ak Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci biir maître Ngagne Demba Touré ba léegi njaw ma ngi wéyale su xame na ndax keroog bi ñu koy déglu ñi nga xam ne ñooy greffier yi dañoo demoon ca buntu bureau Mamadou Seck juge deuxième cabinet doon fa ñaxtu journal bi nee procureur nag daan nay santaane ba teg loxo kenn koo xam ne bokk na ci greffier yi di maître Abdoulaye Mboup Abdoulaye Mboup des na yeneen ñaar ñoo xam ne war nañu leen a teg loxo li ñu leen di toppee mooy outrage à magistrat fitnaal am magistrat yàq deru justice yéene kaay gi di révélation xëy di ñuy xibaar naan ñu Farba Ngom keroog la ñu ko invité ci sa TV mu taxaw ne Dame Mbodj ak Clédor Sène ñooñee toog nañu ak Macky Sall bëggoon a jàppale Macky Sall ci lu jëm ci wàllum troisième mandat bi loole nag Farba Ngom moo ko wax Dame Mbodj daan na koy weddi ba tëdd sa naaj wa nee na ba li mu wax dara amu ci lépp ay kàcc la